mais sama gars yi Mayday Mayday Mayday Mayday mais ani Barthélemy ak kii Barthélemy ak Bougane non Barthélemy xam naa temps yi nag ba të loolu loolu xol bu Barthélemy mënu ko dégg Barthélemy bi nga xam naa ne fi mu ne nii ay kii lay déglu ay CNN lay seetaan xam naa bu xoolee Diomaye ak Sonko ba ñu waxu ci tapis rouge bi non non non loolu ku ko waxoon du ko gëm wa të të të knockout kawo Bougane nag borom deuxième tour teg xel non cinq ans yi dina gaaw si gars yi mais cinq ans yi dina mel ni cent ans <laughs> wallaahi li ñu naan li ñu naan suñu cent mooy benn jour yàlla mais suñu cinq ans yi mooy mooy cent ans <laughs> cent ans wu Barthélémy meeg Bougane war baaxul teg xel baaxul ku la yéen a jàmm yéen a ko jàmm mi nit ki yéen a la jàmm yéen nga yéen a ko safaan lii rek lay jur hmm? lii rek lay jur vraiment seen xel tooñ na leen quoi xaw ma seen xaw ma seen xel xaw ma seen kii technique Barth moom dafa ne mairie Dakar bu nawee dem vous savez la mairie Dakar

maintenant aussi qui est qui ay c'est batterie faible la len tuddé bugan mom dafa daw baña bok parce bom bu nan mom bama la batterie faible batterie day fay 0% la sonko xol bu rafet day fay quoi barke rasulillah c'est jomay ya bax li ngay li sonko rek dal ci yow bi day te sax gën quoi 5 ans après 10 ans 5 ans wa non dictature bi nan la metti bi moy dictature nak mais dictature bu and ak élégance hein pas comme celle de Macky Sall quoi une dictature avec élégance fichier bi amul ay kii bokk la yooyu ñii ñëppay bokk pour une première fois cinq ans yi ñëw non Barth kii moo Bougane je te fais la promesse di bokk ci élection yi Bougane je te jure di xam ne ñun ñoo am élégance ñi ngi soog a am état billaay dina ma ku sonnoon ci sëy après am sëy bu bees ne man